dal leen ak jàmm mu ubbil yéenekaay bi di syndicalisme hebdo naka dikk na ak benn xët wu yaatoo yaatu jëm ci fin de crise scolaire ki fi nekkoon ministre de l'éducation naka di Khalidou Diallo la mu bëgg rek mooy benn charte stabilité boo xamante ni si dina tax rek ñu fexe ba juguler les grèves xëtam bu yaatu boobee nag xëy nañ koo tàqat ñi ci syndicalisme hebdo syndicalisme boobee nag xëy na tàqat ñi leneen moo jëm ci guerre Sénégal ak Ukraine naka la radicale 450 ci ay liggéeykat des stations essence nag ñoo ngi ci chômage ci jamono ji lu ëpp nag 1,2 milliard la ñuy sàkku rek ci état bi mu jox leen ci jamono joojee nag ca CBAO agent yi nag déposé nañ ab préavis de grève ngir rek ñaxtu la nga xamante ni si noone la kër googee di doxalee syndicalisme hebdo dikkaat na itam dalal keneen koo xamante ni moo ngi woy ci turu Aïssatou Cissé di conseillère spéciale du président de la république waxtaan wu yaatu wa ñu seq ak suñu ngi ci biir bu njëkk nag ngeen mën ko faa jàngee ci wàllum tàggat yaram écho des lions nag Ismaïla Sarr dal dee am ay gaañu gaañu waaye boobu muy naka dina toog ñaari ay bés yoo xamante ni du ko jongante mbaadu ñàkk rek suñu jongante beek Égypte lu mu ci doon lu ne nag seen hebdo baa ngonoog dikk a xibaar yu ama am solo ngeen mun koo am nag ci mboolem distributeur cent franc rek lay jar